sàmmal ñu suñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñ Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. Sénégal. Sénégal. xam leen ñun ñëpp nañ xam ne. ñun ñëpp nañ leen xam ne. Sénégal rek la am. Sénégal rek la am. bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul. Sénégal bu yàqoo population bi yëpp la yàqul. lii yenn xale yi di waaj. lii yenn xale yi di waaj. buñ ci dugg. buñ ci dugg. ndax am na loo xam ne buñ ci duggee. ndax am na loo xam ne buñ ci duggee. am na nit ñoo xam ne. am na nit ñoo xam ne. yàkkamti fu ñu bëttee rek dem defee xay lañ yàkkamti. yàkkamti fu ñu bëttee rek dem defee xay lañ yàkkamti. te buñ déggee Sénégal a ngi commencé am yu mel noonu. te buñ déggee ne Sénégal a ngi commencé di am yu mel noonu. waaw mënatuñoo garanti suñu bopp de. su boobaa mënatuñoo garanti suñu bopp. ci sécurité ndax ñooñu ñu ngi amee arme. am na ñoo xam ne ñu ngi amee arme. ñu ngi amee xaalis. ñu ngi amee xaalis. ñu ngi amee lu nekk. ñu ngi amee lu nekk. yàkkamti rek. yàkkamti rek. gis foo xam ne mën nañ ko faa yóbbu rek. gis foo xam ne mën nañ ko faa yóbbu rek. ñu yóbbu ko fa. ñu yóbbu ko fa. kon nag loolu buñ ko may. buñ ko may ñooñu. kon loolu bu ñu ko may ñooña. buñ leen buñ leen jox suñu réew mi ñu sànk ko. buñ leen jox suñu réew mi ñu sànk ko. li ñuy yaakaar ci réew mi am ko ci alal ak yooyu. li ñuy yaakaar ci réew mi am ko ci alal ak yooyu. buñ leen ko may ñu sànk ko. buñ leen ko may ñu sànk ko. nañ leen sàmm suñu bopp. nañ leen sàmm suñu bopp. idéologie yi ñuy xeexal yëpp du dara. idéologie yi ñuy xeexal yëpp du dara. amut. amut li am li am mooy nit ki mooy nit ki ak dogoom ak dogoom ak li mu bëgg def rek ak li mu bëgg def rek te suñ dogu te suñ dogu ak li ñu bëgg a def ak li ñu a def dëgg dëgg Sénégal war Sénégal kenn waru ko ci ëppale dëgg dëgg Sénégal kenn waru ko ndax moom rek la ñu am ndax moom rek la am bu ñuy taseeg yàlla ëllëg bu ñu ngi taseeg yàlla bu ñuy taseeg yàlla ëllëg bu ñuy taseeg yàlla ëllëg ci Sénégal la ñuy taseeg moom ci Sénégal la ñuy taseeg moom kon nag kon nag foofu la ñuy dëkkale ndax foofu la ñuy dëkkale ndax foofu la ñuy dëkkale foofu la ñu dëkkal foofu la ñu dëkkal foofu la ñu may foofu la ñu may buy taseeg ñun tamit ëllëg foofu rek lay taseeg ñun buy taseeg ñun tamit ëllëg foofu rek lay taseeg ñun kon nag nañ fonk suñu dëkk bi kon nañ fonk suñu dëkk bi yàlla fonk na ko yàlla fonk na ko may nañu ay nit yàlla yoo xam ne may nañu ay nit yàlla yoo xam ne may nañu ay jullit yoo xam ne may nañu ay jullit yoo xam ne bu ñu fonkutoon duñu ko may bu ñu fonkutoon duñu ko may te loolu moo ëpp solo ci ñun te loolu moo ëpp solo ci ñun idéologie yi ñuy xeexat idéologie yi ñuy xeexat parti yi ñuy xeexalat waxtu yi ñuy xeexal ak. yooyu yëpp pertal suñ pertal suñ bopp rek la. yooyu yëpp pertal suñ bopp rek la nañ seet li ñu yàlla wax ñu ñu def ko. nañ seet li ñu yàlla wax ñu def ko. yéen doomu aadama yi yëpp benn ngeen. yéen doomu aadama yi yëpp benn ngeen. mën naa leen bind. yàlla moo ñu bind. ki gën ci yéen nag. ki gën ci ñun nag. mooy kii daw jëm si ci man. mooy ki daw jëm ci yàlla. foofu rek la kaaraange nekk. foofu rek la kaaraange nekk. foofu rek la am nekk. foofa la am nekk yal na ñu fa yàlla yóbbu yal nañu fa yàlla yóbbu ci kaw yërmandeem ci kaw yërmandeem ci kaw mbaaxam ci kaw mbaaxam nañ jàppale suñu bopp nañ leen jàppale suñu bopp jàppale suñu bopp mooy ñuy jàppale suñu autorité yi jàppale suñu bopp moo ñuy jàppale suñu autorité yi jàppale wuñu màkk yi jàppale wuñu màkk yi jàppale jàppale wuñu jiw jàppale wuñ diw. suñu réew la ñuy jàppale. suñu réew la ñuy jàppale te ñoom ñoom la yàlla teg seen loxo ñu jiite ko. ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu jiite ko. kon nag jàppale leen. kon jàppale leen. topp ndigal yàlla rek la. topp ndigal yàlla rek la. leen jàppale nañ leen dëgëral. nañ leen jàppale nañ leen dëgëral. buñ leen buñ def ci seen bopp yi ay xalaat yoo xam ne li ñu war a def sax dootuñ ko mën. buñ leen buñ def ci seen bopp yi ay xalaat yoo xam ne li ñu waroon def sax dootuñ ko mën. buñ def ci seen bopp yi yéene yi amoon def ko. buñ def ci seen bopp yi amoon pour def ko. defal ko nit pour defal ko nit ñi. soppi ko yéene. li soppi ko yéene. defaat ndar seen bopp rek. defaat ko ci seen bopp rek. loolu baaxul. loolu baaxul loolu ci ñun lay bàyyeekoo. loolu ci ñun lay bàyyeekoo. war ñoo xam ni ñuy taxawee. war nañoo xam ni ñuy taxawee. dëgg la xam-xam dëgg la. xam-xam dëgg la. bu tubaab beeg bu arab bi yëpp benn la. bu tubaab bu arab bi yëpp benn la. bu tubaab beeg bu arab bi yëpp benn la. xam-xam xam-xam rek la tudd. xam-xam moom xam-xam rek la tudd. ak boo ko mënee làkkee ak làkk boo ko mën a làkkee ak làkk boo ko mën a làkkee. dund bi itam ñun ñëpp ko bokk. dund bi ñun ñëpp ko bokk. ñun ñëpp a ci em ñun ñëpp ci em ñun ñëpp ci am ay droit. ñun ñëpp ci am ay droit. ñun ñëpp ci am ay droit. loolu. loolu. war nañoo xam naka lañ koy sàmmee. war nañoo xam naka lañ koy sàmmee. naka lañ koy jàppantee. naka lañ koy jàppante naka lañ koy dëgëralee. naka lañ koy dëgëralee. te bàyyi. te bàyyi. dëgg-dëgg ay gis-gis yoo xam ne. dëgg-dëgg ay gis-gis yoo xam ne. gis-gisi ay nit rek la. gis-gisi ay nit rek la. jëmut fenn. jëmut fenn. lii fii des te sax fi. li fiy des te sax si. tey dëggu. te dëggu tey dooleeku. tey dooleeku. mooy li ñu yàlla sant rek. mooy li ñu yàlla sant rek. mooy lislaam. mooy lislaam. ak suñu yii nga xam ne doon nañ ko ci suñu maam yeeg suñu bàyyi. ak su yi nga xam ne doon nañ ko ci suñu yeeg suñu bàyyi. te kenn ci ñun rëccuwu ko. te kenn ci ñun rëccuwu ko. kenn kenn bëggut a bàyyi li sa bàyyi nekkoon fii. kenn kenn kenn bëggut a bàyyi li sama li sa bàyyi nekkoon fii. xanaa da ngay xeeb sa bopp sax ndax mënumaa def li ñu defoon. xanaa da xeeb sa bopp sax ci man mënumaa def li sama bàyyi defoon waaye nag waaye nag bu ma ko mënut itam bu ma ko mënut itam danaa ci góorgóorlu bañ xam ne góorgóorlu naa ci danaa ci góorgóorlu bañ xam ne góorgóorlu naa ci yal nañu yàlla dimbale yaara yal nañu yàlla mayal boppam yal nañu yàlla mayal boppam yal nañu yàlla yëkkatil boppam yal nañu yàlla yëkkatil boppam yal nañu yàlla taxawul boppam yal nañu yàlla taxawul boppam yal nañu yàlla nekkal yal nañu yàlla nekkal ku yàlla nekkal am nga lu nekk ku yàlla nekkal yow xam nga lu nekk te ku uti yàlla rek fekk ko fa foo uti yàlla rek fekk ko fa te ku uti yàlla rek uti yàlla uti yàlla rek am yàlla rek am yàlla yal nañu yàlla taxaw yal nañu yàlla taxaw yal nañu yàlla sàmmal suñu Sénégal na ñu yàlla sàmmal suñu Sénégal Sénégal nag Sénégal nag Sénégalais bu nekk Sénégalais bu nekk kóllëre la ci sa baat kóllëre la ci sa baat ko war a sàmm da nga war a sàmm Sénégal Sénégal sàmm ko sàmm ko. du mooy ngay sàmm ay idéologie du mooy ngay sàmm ay ay idéologie du ngay sàmm ay parti du mooy ngay sàmm ay parti waaye Sénégal nga sàmm ko. waaye Sénégal nga sàmm ko. mais sama mbokk Sénégal mii moom la. mooy sama mbokk Sénégal bii. mooy sama mbokk Sénégal bii. fu ma ko mën a faree ma faree ko fa. fu ma ko mën a faree ma faree ko fa. fu ma mën a faree faree ma fa. fu ma mën a faree faree ma fa. ci xol yu set. ci xol yu set. ci yéene yu rafet. ci yéene yu rafet. ci bëgg-bëgg yu kawe. ci bëgg-bëgg yu kawe. kooku moo yàlla. kooku moo yàlla buñ nekkee foofu rek yàlla nekkal ñu. buñ nekkee foofu rek yàlla nekkal ñu. waaye leneen luñ fa nekk di ko utal suñuy bakkan ak suñuy doole lu ñu utal suñuy bakkan lu ñuy utee suñu bakkan lu ñuy utee lu ñuy utee suñuy bakkan ak ak utee ko suñu doole ak utee ko suñuy doole duñ ci am dara duñ ci am dara yëpp dañ koy dañ ko dañuy def ba defee ne àgg nañ rek lépp dañuy foog ne àgg nañ rek waaye bu ñu àggee duñ fa fekk lu dul dara waaye buñ fa àggee duñ fa fekk lu dul neen rek neen rek lañ fay fekk neen rek lañ fay fekk boo nekkalee nag fi nga xam ne fi nga war a nekk waaye yàlla boo ko nekkalee fi nga war a nekk di nga xam ne nekk nga koo xam ne di nga xam ne yow jàmm bi nekk nga koo xam ne bàyyiwu la benn yoon. bàyyiwu la benn yoon. booy nelaw mu ngi lay sàmm. foo ne rek mu ngi lay sàmm. booy nelaw mi ngi ànd ak yow. booy nelaw mu ngi ànd ak yow. booy yeewu mi ngi ànd ak yow. booy yeewoo mu ngi ànd ak yow. booy lekk mu ngi ànd ak yow. booy lekk mu ngi ànd ak yow. booy naan mu ngi ànd ak yow. booy naan mu ngi ànd ak yow. ak yërmandeem. ak yërmandeem. kooku kenn mënu koo wattal nit. kooku kenn mënu koo wutal nit. yàlla rek kooku rek la mën a doon. yàlla. yàlla rek la mën a doon. yàlla rek la mën a doon. yàlla nekk suñu yàlla. yàlla na nekk suñu yàlla. Seydina Aliou waxoon na ne. Seydina Aliou waxoon na yow yàlla. yow yàlla. sama buur. yaay sama buur. nangu naa ko. nangu naa ne yaay sama buur. maa ngi koy puukare woo. maa koy puukare woo it. ndax yàlla yow tamit nangu nga ne man sa jaam laa. ndax yow yàlla nangu nga ne. man itam sa jaam laa. koy puukare woo. booy puukare woo booy puukare woo na nañu yàlla may loolu yal nañu yàlla may maqaam woowu yal nañu yàlla nangul yal ñu yàlla nangul te yal nañu nangu itam te yal nañu nangul itam yal nañu boole ci ñim teralal boppam yal nañu boole ci ñim teralal boppam ndax moom rekk am teraanga ndax moom rek moom am teraanga salaamaaleykum salaamaaleykum